dëgg la luñ ko yokk yokk dinañ ko jënd waaye dina toll foo xam ne du ñëpp a koy jënd tey buñ demee ba ay sàngara ay sachet sàngara nga koy mën a jënd ay cent franc deux cent franc loolu lan lay teg mooy ñëpp nañu nañu naan tey dem nañ mbokk yi suñu réew yi seen xel yi newul di jàng fii ak dix ans yi ñëw wala vingt ans yi di ñëw xoolal fan yi lan lañ fi génnee ay tàngal yoo xam ne xale bu góor dañ ci def dessin xale bu góor xale bu jigéen ñu jàkkaarloo boo bësee bouton rek ñu fóonante mbokk yi xoolal loolu xale yu ndaw yu nekk ay CI ñu ngi leen di jàngal ay fóonante ci ay produits yoo xamante ne ay mbiskit ay tàngal ay yooyu ñu toog bi seetaan loolu ñu ne censuré nañ ko censuré nañ ko te ba léegi ñu ngi koy jaay ñi ci amoon ay ay conteneur ñooñ dinañ ko bàyyi muy yàqu